ñuy dalal tey docteur Isma Ndiaye mu woon ordre des vétérinaires du Sénégal tey moom mooy secrétaire général conseil national vétérinaire privé bu Sénégal ñu lay nuyu di la dalal docteur. Elisabeth maa ngi maa ngi lay sant di la gërëm ci bi. Mhm. Euh, feebar bi nga xam ne boobaak léegi ñu ngi koy dégg ay semaine a ngi nii muy variole du singe euh, lool mooy lan ci dégg. waaw variole du singe bu bu ngeen ko déggee feebar la boo xam ne dafay jàpp euh, golo yi. Mhm. muy feebar boo xam ne. Euh, dafay def maanaam ay ay picc ci kaw yaramu euh, golo bi. Mhm. picc yooyu mën na dem ba mu euh, yàgg mu daal di sol dëtt bu sole dëtt mu daal di ubbeeku daal di toj bu tojee. Mhm. mu def ay góom góom yooyu nag mën na ñëw tegu maanaam lu ko muur nan naan kurut. Mhm. mu ci kaw. waaye nag muy feebar boo xam ne variole boobu mën na jóge ci maanaam golo dem ci doomu aadama. kon mooy li nga xam ne ñu ngi koy dund fi ñu toll nii. waaye ñu jàpp ne. Euh, dafa bokkoon ci xeet feebar yi ñuy wax zoonose. Mhm. waaw mooy zoonose mooy bépp xeet feebar boo xam ne. Mhm. mën na jóge ci mala dem ci doomu aadama. waaw ci tënk daal. loolu mooy mooy variole du singe. Mhm. tey jii euh, ñu dégg ci ci bi euh, variole du singe ndax mën nañoo jàpp ne ci golo lay jógee. waaw ci golo lay jógee moo tax ñu ne variole du singe même bu demee ci doomu di di ko di ko tuddee. parce que fa mu la. moo tax ñu ne variolu golo. bu ngeen déggee variole nag wala fi ñu koy faral di woowee mooy maanaam feebaru put mhm. put parce que yaram bi day def mel ni lu def ay put put mhm. am na ci xar yi am na ci nag yi am na sax ci ginaar yi mhm. waaw mais nag yooyu am ci xar ak nag ak ginaar bokkut bi nga xam moo am ci ci golo yi ndax ñu nekk ci xar nag ak ginaar du dem ci doomu aadama ndax li ni la ñu di ko dégg ci àdduna bi waaw du guleet ndax euh, bu ñu seetloo lu ci gën a yàgg euh, day feebar boo xam ne Euh, fii ci réewu Afrique yi lañ ko daan gis rawatina réewu Afrique yi nga nekk yi nga xam ne ñoo féete digg ñuy Afrique centrale. Hmm. waaye depuis euh, atum mooy atum ñaari junni ak ñett euh, ci lañ gisoon ne gën na maanaam Afrique dem ci continent américain muy États-Unis waaw hmm. ah, waaye nag ren gis nañu ne romb na États-Unis gis nañ ko ci ay France waaw gis nañ ko ci ay Australie. Hmm. gis nañ ko ci Angleterre. waaw mu kon daal gën naa gën naa xaw a muy loo xam ne bariwul a am. sànq yaa ngi koy wax day jóge ci euh, mala dem ci nit wàllante bi ban voie de transmission en fait lay jël ndax dëkkandoo ak mala yi moo koy waral wala am na yeneen anam yi nga xam ne nit mën na koo jëlee. waaw bu dëkkandoo golo mën na koo joxe bu fekkee da nga yor golo mu am feebar bi. Hmm. loolu mën na koo joxe waaye li si gën a bari li gëstu yoone mooy ñi koy am mooy ñi nga xamante ne dañuy jëriñoo euh, golo ci seen ci seen lekk. Hmm, hmm. waaw maanaam boo buñ ko jëlee di ko defar fañ koy defaree. Euh, mu am maanaam deret boo xam ne dana génn. Mhm. mu am yeneen maanaam ndox yoo xam ne dana génn ci yaramam. Mhm. waaw loolu yëpp rek day bokk loo xam ne bu laalee yar bu doomu aadama wala mu dugg ci euh, gémmiñam wala bakkanu doomu aadama. Mhm. Euh, xëy na mën na nekk loo xam ne dana tax doomu jàngoro bi jóge ca golo ga dem ci doomu aadama li ci gën a bari daal. ci yoon woowu lay jaar. waaye rek dëkk ndox golo gi am ko it bu fekkee ko mën na ko mën ko indi. waaye li ci a bari daal mooy la ma wax docteur ba muy soog a feeñ euh, apparaître en Europe euh, il y a quelques semaines euh, justement dañoo ne virus bi euh, ci ñu ëpp ci ñu recensé ci ñu mu laal ay homosexuel lañu ndax li ni mel dafa am justement lu muy wundu waaw loolu dëgg la ñu ngi ñuy wax lu mel noonu waaye nag man du ma ci mën a sori. Mm-hmm. ndax amaguma firnde yu wóor a wóor pour mën a wax lu mel lu mel noonu. Mm-hmm. waaye li mën a wax rek mooy comme la ñuy wax sànq dañu ne maanaam dëkk golo bi. wala jege ko lool mhm. waaw jege ko lool nag boo ko déggee lu lu nekk nga ci biir mhm. ak façon jege boo ko jegee lool am na ko rek mhm. doomu jàngoro bi mën na mën na wàlle ndox mi nga xam ne mooy jóge ci góom yi bu laalee yaramu doomu aadama bi wala mu laal ay bakkanam waaw loolu yëpp mën na andi doomu jàngoro bi jàll jóge ci ba dem ci doomu aadama waaw li ñuy wax nag ah xëy na loolu beneen façon maanaam euh, jege golo yi la. Mm. Euh, ba tey boo ku ko def rek day nekk euh, loo xam ne maanaam day nekk bunt pour que doomu jàngoro bi aussi mën la mën la wàll. ndax wàllante bi gaaw waaw wàllante bi diggante golo bi ak doomu aadama bi gaaw na waaye nag wàllante diggante doomu aadama ak moromam nee nañ gaawut. waaw nee nañ gaawut. Mm. waaw ndax boo tax boo seetloo bu xosee ba dem ci doomu aadama maanaam liñ ci am ci ay cas du bari du du bari lool waaye nag ren. lu euh, ñu seetloo mu doxee ko mooy jóge na ci euh, ay dëkk Europe dem ci yeneen réew. di doxantu Europe mhm. waaw di doxantu. voilà comme mi ngi doxantu nag. Mhm. te amaana sax am si ñoo xam ne jege bu ñu golo kon war nañoo ah taxaw seetlu. xool lan moo tax mu demee mu demee noonu. Mhm. ndax la ñuy wax ne maanaam yool waalante bi diggante doomu aadama ak moromam bariwut wala yombut ndax euh, bii am ni ndax noonu la demee waaw loolu dafa laaj gëstu. dëgg la wàllante bi nit ak nit euh, amaane na gaawul noonu mais tey dangerosité bi ndax euh, lu mat a tiital tiital nit la. waaw waaw ñaare dañuy wax ne maanaam li muy rey euh, bariwut ndax dañ naan boo jëlee téeméer yu ne rek xëy na peut bu mënee buy rey day doon fukk ya waaye rek dañoo ne fukk yooyu day fekk ne. ñu am maanaam yeneen feebar yoo xam ne xëy na mu ngi seen yaram. Hmm. Euh, euh, euh, profité ci variolu singe bi. Hmm. daal di daal di fës. Hmm. wala boog variolu bi ubbi bunt yi ubbi ay porox ndollu yeneen xeetu microbe yu wax ay bactéries daal di dugg daal di fi ñuy wax infection. secondaire waaw su boobaa nag xëy na mu gàllankoor bakkanu ki nga xam ne moom moo moom moo feebaroon nag bu fekkente ne feebar bi seetlu nañ ko jël ko ci en charge ni mu waree. Ah, li ci gën a bari borom mën naa daal di wér te du am benn benn jafe-jafe. yaa koy wax sànq duguleet ndax Afrique moom it euh, mës naa am li nga xam ne mooy épidémie jëm ci mbir moomule. Euh, booba nañ nan lañ ko maîtriser justement. waaw xam nga waaw xam nga feebar bi dafa bokk ci li ñu naan xeetu maladie virale. Hmm. mooy doomu jàngoro yi nga xam ne li ko indi virus la. virus benn xeetu euh, doomu jàngoro bu tuuti la. Hmm. virus boobu dañuy wax ne feebar bu mu indi rek boo xam ne virus ko waral amul du am maanaam ñu ne faj bi lii ala kulli aal mooy faj ba. Hmm. waaye dañuy def naan maanaam jéem pour faj mooy li ñuy wax ci euh, kàllaama médical traitement symptomatique. Hmm. dañuy jéem pour faj. li hmm. ñu ko jëlee ni ñu ko fi jëlee nag mooy rek di xool ñi nga xam ne am nañ ko di leen jox garab yoo xam ne boo dee bu dee doomu aadama bi ka am dem ci docteur ba bu dee mala bi ka am bu dee mala bu ñuy denc ci biir kër la. loolu vétérinaire bi su ko defee ku nekk rek nga xool maanaam say jumtuwaay loo si mën a jël rek pour maanaam li nga xam ne mooy mandarga feebar bi nga daal koy xeex mu daal di wér. Mm-hmm. kon noonu rek lañ ko mën a jëlee en charge ak leneen la nag mooy euh, vaccination mooy ñàkk bi. Mm-hmm. waaye nag bu dee variolu euh, golo yi moom euh, ñàkkam amul waaye seetlu yi na ñu ne ñàkk ba nga xam ne moo doon ñàkk. variole bu doomu aadama ci boppam. tey mm-hmm. tey ñu jëlee ko fi. ko fi jëlee mooy ñàkk bi vaccination moo ko fi jëlee. bu fekkoon ñàkk boobu am na ñi nga xam ne ñàkkoon nañ leen ca mën nañu bañ a am doomu jàngoro bi nga xamante ne mooy jóge ci ci golo bi ndax su boobaa maanaam dafay am niroo Euh, niro bu am diggante doomu jàngoro bi doomu aadama ba woon ak doomu jàngoro variole bi nga xam ne moo jógee ci golo bi niroo boobu nag moo tax ñàkk bi doomu aadama gën a mën a aar ki nga xam ne mooy doomu aadama bi xam ne jël euh, euh, variole singe ñëw na ci moom. kon loolooy wax ni amul vaccin. waaw amul vaccin variole golo bi amul amul amul vaccin. Mhm. waaw mais nag am na ay vaccin nag variole yoo xam ne am na nañu ci yeneen mala yi moo xam ginaar yi la moo xam xar yi la moo xam nag yi la. waaye bu golo bi moom amul waaye li jàpp rek mooy ki nga xam ne euh, aaru woon na ci variolu doomu aadama kooku variolu golo bi mën na ko bañ a sànq ñu ngi koy wax yaa ngi koy wax sax jóge na ci dëkk dem ci ay yeneen euh, dëkk ndax Sénégal tey mën naa euh, tiit ndax gis nañ ne frontières yi dem ak dikk bi kenn mënatul téye kenn coronavirus baa ngi nii teewul ba muy ñëw segg nañ ba sonn mais agsi na tey ndax war nañoo mën a tiit ci li ñuy dégg ci variole bi. wa du ma wax sax tiit euh, ci ci boppam ndax bu ñu tiitee rek jaxasoo dafay daal di am waaye nag comme li a wax firnde la mooy euh, bu ngeen déggee euh, coronavirus Covid 19. Hmm. fa mu bawoo mooy ci Chine. Hmm. ci Chine boo demee dëkk bu ndaw boo xam ne ñu xamuñu ko woon sax bu ñuy wax Wuhan. Hmm. xëy na Covid 19 bee tax ñu xam ko. kon moo lay wan ne kon doomu jàngoro mën naa tukki. jógee réew akum réew akum réew. di taxawaalu. kon loolu mu mën a taxawaaloo bii di bu variole bi mën na ko mën na ko walante bi nu mu gaawee ci Covid 19 nga xam ne mm. mu am ko mu nooyi nga daal di koy nga daal di koy jël bokkul ak euh, maanaam bi doonte mën na jaar ci yoon boobu. Mm. variole. Mm-hmm. waaw waaye nag gaayowut comme bi nga xamante ne moom mooy coronavirus bi. waaw waaye nag du tee ñu jël suñu motuwaay rek. Mm-hmm. waaw bañ a bañ a bañ a bàyyi ndiku xam ne feebar la comme yeneen feebar yi te feebar bu mu doon rek moytu ko moom moo gën. période d'incubation ndax euh, délai bi bëriwul. waaw bu ñu nee période d'incubation boo ko déggee mooy maanaam diir bi nga xam ne gannaaw doomu jàngoro dugg na ko ci yaram. Hmm. ak digganteem ak diir ba nga xam ne dañuy seet ay seen ay mandarga yu jóge ci feebar boobu te doomu jàngoro ba waral ko. Hmm. bu ngeen seetloo Covid 19 dañu doon wax ne maanaam ñaari semaine la jëm ñetti semaine. Hmm. bii di feebaru putt puttu bu golo moo xam ci nit la wala ci doomu aadama dañ ne day jóge juróom benn fan dem aussi ci ba ci ay ñaari semaine kon doomu jàngoro bi mën na dugg ci yaramu nit waaye du ko yëgagum faw gën ngaa néew gën benn fan une semaine jëm kaw pour mu soog koo mandarga yi feeñ. docteur ñu wax ci euh, pajum euh, mala yi santé animale ak environnement. Euh, merci ba mhm. ñu ko préciser tout à l'heure tey lan lañ ci mën a jàpp ci feuille de route bi Sénégal teg. waaw liñ ci mën a jàpp mooy comme ni ma ko waxee sa njëlbeen rek wérgu yaramu a aadama ak bu mala yi dafa dafa lënkaloo. Hmm. ndax lii wane na ko Covid 19 wane na ko variole singe bi wane na ko waaye aussi sellal li nga xam ne moo ñu wër. moo tax ñuy wax maanaam benn ko wér gu yaram mm-hmm. une seule mm-hmm. benn ko wér kon prise bi maanaam ñu war a toppatoo feebar yooyu mooy gën a yokk lëkkaloo bi rek bi nga xam ne am na ci diggante ñi yor wér gu yaramu mala yi ak ñi nga xam ne ñoo yor wér gu yaramu doomu aadama yi mm-hmm. lépp luñ ciy def rek mu nekk loo xam ne dañ koy maanaam pencoo àndandoo ci ndax buñ ko jëlee pàcc par pàcc du sotti waaye dañoo bëgg war a boole lépp rek mu nekk benn euh, benn pàcc bi waaye bu loolu wéyee euh, ñu jàpp ne rek euh, feebar yi nga xam ne tey sànq maa ngi koy wax am na feebar buy feeñ ci nag yi bi ñuy wax dermatose nodulaire contagieuse bovine. Mhm. Euh, xeetu feebar variole du singe la waaye donte bokkut. te it boobu noonu du ci nag dem ci doomu aadama. Mhm. am na ay ñàkk yoo xam ne ñu koy ñàkk at bu ne. Euh, nag yi te loolu ki euh, euh, jiite mooy ministère de l' élevage lëkkaloo ci ak vétérinaire privé yi nga xam ne ñoom laay jiite. tey jii yaa ngi wax sànq ne variole du singe bi ci zoonose yi la bokk nan la ñu mën a def yow mi ci sa ci sa domaine gi nga nekk ban approche hmm. lañ war a teg ngir surveillance communautaire bi ñu gën ko doole. waaw approche bi comme li ma koy faral di waxee rek maanaam yoon bi doxalin bi. Hmm. dafa war a nekk loo xamante ne bu mu yem rek ci ay maanaam wax. waaw pour wax ne rek euh, euh, wér-gu-yaram bi benn la dañ ko war a jëlandoo euh, boobu ci wàll wu ne moo xam wàll mala yi la ak wàll doomu aadama. Mm. waaye loolu nag dañ koy fësal dañ koy fësalee rek mooy fépp foo xamante ne daal gis nañ fa maanaam jàngoro boo xam ne jàpp nañu ne pour ñu mën koo xeex foofu ñu jël ci wàll vétérinaire jël ci wàll ñi nga xam ne ñoo yor wér gu doomu aadama daal di koy boole ak ñi yor maanaam li nga xam ne mooy li ñu wër muy environnement bi. Mm-hmm. muy li ñuy wax maanaam approche multidisciplinaire wala pluridisciplinaire. tant que àgguñu foofu rek de façon effective kon day am toujours loo xam ne day daal di sooxee waaye nag heureusement que am na ci ay institutions yoo xam ne maanaam loolu lañ leen euh, sas ñu di ko dox waaw ñu ngi ci ay def ay jéego nag waaye nag ba tey motagul fa ñu war a àgg àgguñ fa waaye xëy na yàgg-yàgg dañ fa àgg incha allah docteur Ndiaye tey Sénégal gis nañ ne kër goo dugg ñett sur cinq yi euh, di nga fa fekk mala. bi euh, mhm. nga xam ne dañ ko fay yar ndax sénégalais yi am nañ culture di yóbbu mala yooyu le kër docteur ndax feebar mën naa jóge fu ne. waaw boo méngalee fi ñu toll ak euh, at yi weesu. Mhm. wat xëy na ëpp na fukki at sa ginnaaw. Mhm. dañuy xool ne am na jéego yu bari yoo xam ne am nañu ko. waaw ndax léegi nit ñi wax dëgg yàlla ñu ci bari. Euh, ñu ngi jël seen i mala di ko yóbbu ci euh, vétérinaire ñu leen koy xoolal rawatina aussi suñu nga xam ne ñu ngi ci euh, maanaam ñu ngi def li ñuy wax maanaam élevage intensif. Mm. mooy xeetu yar yi nga xam ne maanaam day nekk boo xam ne dafa xaw a moderne. Mm. waaye nag teewul aussi ñi nga xam ne dañuy def bu traditionnel bi nekk ci maanaam gox goxaat yi ñoom it aussi. xam nañ ne li ñu yor alal la te bu ko feebar laalee yàq ko. Mm. ñoom ñu ngi def ay jéego di jëm ci vétérinaire yi. donte nag des na waaye des boobu li koy gën a yokk rek mooy ñu gën a farlu ci maanaam li euh, ñu naan communication sensibilisation maanaam yëgle bi yeete bi. Mhm. Ah, te loolu euh, ñu ngi leen di sant ci ni ngeen ñu mayee nii ñu mën ko def ci euh, seen si si Rewmi FM. Mhm. waaye nag yaakaar naa ne li fi jot jaar muy Covid 19. ak maanaam feebar putte bii ñuy wax variole du singe. Mhm. nekk na loo xam ne aussi ay mandarga yu woor la yoo xam ne firndeel ne ku yor mala ku war nga koo toppatoo ndax xamoon la ba euh, ëllëg si biir. Mhm. lan moo a jóge ci mala daal di ñëw yow. ñu lay jaajëfal bu baax a baax leer na nañ docteur Isma Ndiaye. Euh, jërëjëf Elisabeth. voilà ñuy fàttali ne moo jiite euh, woon ordre des vétérinaires du Sénégal ji doon mhm. secrétaire général conseil national vétérinaire privé du Sénégal. merci beaucoup Sénégal.